alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala nabiil amin seydina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain bokki jullit yi fi teew ñi fi dëkkul ak ñi fi dëkk. ñu ngi leen di jot sunu sëriñ. te baatam bàyyi nu fi gannaaw yàlla. muy Cheikh Mouhamadou Mountakha. mu ngi leen di jottali nuyoom kenn ku nekk ci yéen koo man di doon ak foo man di bàyyi koo ngay góor ngay jigéen sëriñ baa ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm itam teewaay bi nga xam ne yéen a ko bokk ak moom di leen dollee gërëm ci toog gi ngeen fi toog ba waxtu wii seen daam wax na ko léegi yaakaar naa dëkk bu doon gàmmoo biig bu ne boo fa demee waxtu wii doo fa fekk lu toll nii ci mbooloo kon loolu sëriñ baa koy sante yàlla mi nga xam ne moo dogal mu jaboote ci ku yàlla may ci ku yàlla may ku yàlla gërëm ku yàlla fay muy sëriñ Tuuba ak liggéeyu maam jaara sëriñ bi nee na mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ci lii nga xam ne. bañ ko dalee bëgg yàgg na. bañ ko biñ fi dalee daje it mu ngi bëgg amee at. biñ fi at. waaye alhamdulilah at mu ñëw. mu mu gënal ko ma weesu woon. mu demee ak mu taxawee ak pas bi ak yitte ji ni ji Serigne waxee rek mu di ne pencum jullit mu ne yeeyoo biig ñu dajee fa màggal yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla na màggal fa juddub yonent bi sallallahu alayhi waaye penc mii nag moom moo ko gën a yeyooti te fii la gën a yellee ndax ki nga xam ne moom la ko yàlla fayee moom maam jaara di seyxul xadiim ni meloon ci borom bis bii ak borom guddi gii kenn melu ci woon noonu. ci ak bëgg ak topp ak liggéeyal ko. képp ku xam doomu aadama. xam ne ku bari bëgg-bëgg la. te bëgg-bëgg yi. am na ci yoo xam ne am na ci sago waaye am na ci yoo xam ne amul ci sago. doomu aadama ku ko xam. xam ni mel ci alal. xam ni mel ci alal. doomu aadama ku ko xam. xam ni mel ci doom. xam ni mel ci doom. dund. ak li ne ci dund yépp. koo xam nag ne yow. yooyu yëpp. yooyu yëpp. daa am lu la ko gënal. daa am lu la ko gënal. ba yooyu mel na ni amatul. ba yooyu mel na ni amatul. kon yàlla melal na nu melalul kenn. kon yàlla melal na la nu melalul kenn. def na la lu defalul kenn. te Serigne Touba noonu la meloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ni bi fi Maam Mor Anta door a mu toll ci fanweeri at ak nangam rekk la àggoon ci bëgg yonent bi la àggoon ci sago neenam yëpp neenam yëpp ak bëggam yëpp ak bëggam géntam yëpp moo doon teg bët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko madina gëm ko madina gëm bëgg gëm tëdd ñaan na ko ba tàyyi ñaan na ko ba tàyyi bi mu demee ba xam ne loolu weesu na bi mu demee ba xam ne loolu weesu na ba dugg ci loxol tubaab yi dugg ci loxol tubaab yi àgg na ci ne àgg na ci ne moom de ñàkk demam màkka kerse la ci moom naqar la ci moom loolu ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fekk na booba sarti aj wàcc ko ndax moomul boppam moomul jëmmam ndax tubaab baa ngi ko ku ne xam ne itam ni mu ko waxee ne at mi yëpp. juróom benn weer yi da ko daa tagg. juróom benn weer yi mu koy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon kooku. desalu loon dara. diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ko waxee ba tey. ni mu ko waxee ba jógee. bi mu jógee. xërloo ci boromam. wuti boromam. wuti boromam. boromam da ko ne. boromam da ko ne. agsi ci man teel na. agsi ci man te boo fa jaarul doo yegsi ci man. buntu boobu mooy Seydina Muhammad. yàlla wan ko ko sallallahu alayhi wa topp ko di ko liggéeyal. mu topp ko di ko liggéeyal. ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam delloo ko yàlla yàlla boromam. daana waxit ne. daana waxit ne. moom léppam. moom léppam. ak féppam. ak ñéppam. da leen a joxe addiya Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. muy jëmmam ak ruwaam. muy jëmmam ak ruwaam. mbindam ak mbindam ak xam-xamam. ay doomam ak léppam. looloo tax ba mujj. bëgg yonent bi moo bëgg yonent bi moo doon yitteem. waaye dem na ba ne yonent bi moo ko bëggal boppam. waaye dem na ba ne bëggal boppam. kon kooku. kenn melul ni moom ci yonent bi. kon buñ koy màggal.